bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ila yawmiddin ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo yelloo sant ci jalaal ak jamaal ak kamal di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci suñ mbokk mu ci yàlla di taalibe baay bu bëgg baay muy sëñ Baye Modou Niass nekkoon Léona Niassène ci jiwaaru Seydi Moulay El Hadj Abdallahi Niass di liggéeyal yàlla ci jaamam yi ci diine ji ci tariqa bi ci fayda tijaniya bi sànq laa jot xibaar bi ci sama mbokk ci yàlla sall baay mu envoyé ma message bi maanaam di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yal na ko yàlla xare aljanna bi gën a kawe muy aljanatul firdawsi yal na ko yàlla baal ay bakkaaram yal na ko yàlla may li muy may jullit ñi ak lim leen dig yal ko yàlla may li muy may ñi gëm yàlla ak lim leen dig yal na may li ñi xam yàlla mas si nu ne yi ak lim leen dig ci zaahir ak ci baatin nekkoon na fii ci àddina di jaamu boromam xamoon nañ ko ci gëm yàlla xamoon nañ ko ci bëgg baay xamoon nañ ko ci bëgg Cheikhu Tijaan yi xamoon nañ ko ci bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nit ko amoon kersa nit ko amoon yar la nit ku xamoon yàlla la nit ku jeexoon ci baay la nit ku xormaaloon njabooti baay gi la nit ku amoon wëllëre la ak njabooti baay gi yëpp maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm maa ngi jaare xalifa bi sayidi wa moolaya walidi al mushfiq al ahmed tijani ibrahim Niass yàlla na ko yàlla jàmm ko gudd fan bu wér ànd maa ngi koy jaale di ko jaale mboolem doomi moolana cheikh ibrahim Niass yëpp yu tedd yëpp maa ngi koy jaale pays bi yëpp da nga koy jaaree xaritam soppeem Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé suñ soppe maa ngi koy jaare bu baax maa koy jaaree mboolem xadaratul ibrahimiya mboolem ummatul islamiya di ko jaare euh, Cheikh Mounhamid na Ibrahima ak euh, xalifa Baye Khalifa Niass muy Cheikh Tidiane ca Léona Niassène ndax ay dëkkandoor yu baax la ñu woon ci moom yal na ko yàlla xare aljanna yal na ko yàlla yobbu jënatul firdaws wax dëgg yàlla ku daan taxawee guddi Cheikh Tidiane la foofu ci tudd woowu Seydil Imam Cheikh Tidiane Ali Cissé moo ko daan teewal di ko defal xatmu al Quran yu bëree mën nañoo seere ci moom lu baax kon nag Sall Baye kaddu yaa ngi noonu yi nga sàkku woon maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziara soppe yëpp maa ngi ñaanal yàlla ñëpp maa ngi sàkku ci ñëpp ñaan yiw ak yokkute ci bëgg Baye radiyallahu anhu xidmaal ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu